mbokki julli di mbokki taalibe yi ginnaaw bi sant yàlla julli ci Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñu ngi delloo njukkal Serigne Touba di wax jërëjëf fa borom Touba di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ba lim yéenee liggéeyal Serigne mu def ko nam ko soobe ànd koog taalibe yi waaye di ñaanal am di Fall Modou Mbenda xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall sun borom yàggal ko fi lool te wéral ko. ci barkab Cheikh Ibrahima Fall waaye di ñaanal sunu sëriñ sunu yaakaaru àdduna ak alaxira muy Baye Ngunda Fall mii toog di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ci barke Cheikh Ibrahima Fall Baye Ngunda noo ngi ànd ak Cheikh Cheikh Saliou Lo mu jógee Baxdaad ànd ak taalibeem yëpp ànd ak soppeem yëpp waaye ànd ak seexam yëpp fas yéenee ñëw fii ci sa kanam jébbal la addiye nga xam ne si ni nee na ma sax addee ji de dama xamul nu ma koy andee ndax am ci xaw cee am gàcce tuuti ndax lu mu yëkkati rek lu mu yëkkati rek ba ba nar la koo andil rek xoolam ak cofeelam day daal di ëpp ba tax na mu ni lii ci oto bi nii ay gàtt la waaye nag da koo tàmbalee dafa ñëw rek nuyoo si mi ngi ànd ak yow liggéeyub Cheikh Ibrahima Fall Lamp bii di ànd ak yow liggéeyub Serigne Touba bii di la ñaanal nag yàlla na fi yàgg ñëw yàgg la fee fekk moom da nee na sagu na lool moom da nee na siggi na lool moom de nee na la Serigne Jéeri waa daan sugu waxoon ne ku ma laal baax ki laal ku ma laal baax ñu ne lu tax mu ne damaa laal Bamba waaye Cheikh Saliou Lo nee na mën naa yëkkati loxoom ne ku laal baax ki laal ku ma laal baax ñu ne ko Cheikh Saliou lu tax mu ne damaa laal bay Ngounda Fall ba ñëwee ca gee ba nga fa jóge kër ga kër gi ci boppam moo yëg ni Baye Ngounda Fall teg na fi tànkam njabootu Serigne Touba gee njabootu Seera Fall gi jëggal ba si la foo bañ ma ruus fa nag bu ko fa teg waaye moom mii de Cheikh Saliou ak mbooloo mii mu àndal ak mbooleem daayira bee nekk Ndakaaru ñoom ñëpp ñi ngi topp sa ginnaaw di la déglu te di la ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér-gu-yaram Cheikh Saliou Lo li ma waxoon ci ay kàddu lépp mun ma koo wax ndax ñu ne dañoo am mbégte ci sa jëmm ji buñ la gisee daanaka duñ mën a wax sax dañuy toog rek déglu bay dem tàll suñu loxo nga ñaanal ñu nag nga daal dem man nag la ma waxoon ca ngan nga rek laay waxaat ab seex laa waaye seexub géwal laa seexub géwal laa bëgg naa xorom si dolleeku bëgg naa fu ma dem ñu xam ne seexub géwal seexub baay faale nga ne ndax moom laa lépp ñu ànd ak yow liggéey bi ànd koog sëñ Saliou Lo seex mii kon dama ànd ak sama rak sëñ Bada moom it dama koy jox rek mu soffi ay kàddu bisimilah sëñ Bada na liñ ciy wax moom du bari sant yàlla sant sëriñ bi ñaan bu baax sëñ Ngunda mu yàgg fi loolu te weer ba li mu naal ci liggéeyal ko sëriñ Basiir Fall Xuraan mu yeggale ko ba def yeneen naal ci kaw naal ak naali boppam te ànd ko ak moom dem mbégte loolu nag ci ànd gi ànd ak sëriñ Saaliw loo ñëw fii fekk si kilifaam gu baax gii kilifaam gi nag kilifa goo xam ne kilifa gu mat kilifa la ndax yàlla daa dogal am na sëriñ soo xam ne ku leen am war ngaa war ngaa sant yàlla bu baax te sëñ Gunda mii ci ñooñu la bokk kilifa la goo xam ne mbooleem ku ñu mbokkal kër maam Cheikh Rahane kenn ku ci ne am na foo ko teg am na cër boo ko jox loolu nag la ko sabab daa laxasaayu liggéeyal ko yàlla liggéeyal ko ci waajuram ba am ngërëm yooyu yëpp kon ñoo ngi ñaan ci barkeb maam Cheikh Rahane Fall barkeb sëñ Basiir Fall xuraan sa sa kër maam yàlla bu ko kenn toogee sëriñ Saliou loo ànd gi nu ànd ak moom ñëw ci sa jëmm ci sa kanam am nañ ci mbégte lool ndax ñun ci kër gi leen bokk waaye bi muy ñëw li mu indi ci ay gàtt dafa ne da koo tàmbalee liggéey bi te ku ne xam na ni weeru koor wi tant que ñiy woor a ngi woor ñu ñun ñuy togg di togg tant que woor a ngi woor ñun ñu togg di togg comme ñuy togg nag ñun ñoo war a togg dara du doy lu nu am dana ko andi mbooloo mii mu àndal te topp ci ginnaawam it kenn ku ci ne boo làmbee xolam mooy ga indi fii ay oto yu bari yu saf ay gàtt jox ko sëñ Saliou mu teg ko sa loxo ndax yow lu la waaye jox Cheikh Rafal ko jox yow dencaloo kenn dara sa yittey kenn du ko yëg waaye liggéeyub Cheikh Rafal nag moom foo ci tollu kooku seqal la nga ko ci soññ kon ñoo ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba barkeb maam Serigne Fall yàlla na nga nu yàgg sonn ñu ñuy sa maam Cheikh Gueye bu baax a baax ak Baye seex mi nga xam ne suñu kilifa la ndax ëtt bii ñun bari na loom bu ñu ko ci ameet war nañoo sant maam Cheikh mais bu baax a baax ndax ñun ak moom ci liggéeyu waajkaayu màggalu maam Serigne Fall gi ak yeneen ite yëpp yëpp mi ñëw ñu ànd sëñ Mbàkke Lo mais nga xam ni rakk la ci sëriñ bi waaye di kilifa nit ku baax ku dal lu sëriñ bi xool loo rek la xool ñoom ñii ñëpp kenn ku ci ne yëkkati nga sa addiya teg ko ci loxob sëriñ bi ngir mu jox la ko te yow lu la waay jox raw na ndax lu la waay jox ci loxo Seera Faal nga koy teg ñoo ngi ñaan yàlla na nga fi yàgg yàlla na nga wér yàlla na nga mucc liggéeyu Seera Faal bi yàlla na nga ci dollee amay ndam ndax yàgg nga cee am ndam waaye yàlla na nga ko ci dollee am ci barkeb Serigne Touba buntu kër bi kat mbooleem koo ko bokkal muy buntu kër sëñ Mbàkke Xari Jóob ñëpp jox nañ la sa wàccuwaay ndax nag koo ko bokkal lim moom jox nga ko kon li nga moom delloo nañ la ko kon ñoo ngi ñaan li fi sa waajuro bàyyi nga rappaloo ko raafaloo ko réerloo ko te yokk nga liggéey bi nag ndax ku fi ñëw xam ne liggéey bi yokk na liggéey bi yokk bi sëñ Saliou Lo mii ci la bokk ndax ku na ci liggéey bi te moom yàlla jagleel ko talaata ndax ku gën a jamono talaata ku gën a jamono talaata moom talaata la gën a jamono yàlla dogal talaata yi maam Cheikh Ibrahima Fall jii mu daan ko def di ko def ba suñ borom dogal bis bi muy joxe boppam ci sa jëm bisub talaata la tey jii muy indiwaat ab liggéeyam bisub talaata la loolu nag di tawféex di ngëneel kon loolu talaata joojee nag jàpp naa ni ko rafetale asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon sëriñ baa ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp yen ñi nga xam ne yéen ànd ak sëriñ Saliou Lo yéen ñëpp sëriñ baa ngi leen sant di leen gërëm tey rafetlu taxaw bi ngeen taxaw ci ginnaaw sëriñ Saliou Lo ginnaaw liggéey bi nga xam ne nag sëriñ Saliou Lo jébbandi sëriñ bi ñun ñëpp dañuy maase déglu kàddu yu sëriñ bi yi muy delloo sëriñ Saliou Lo kon nag sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbokki taalibe yi fi teew te di leen àq te di leen àq ci weeru tedd wi nga xam ne lu ci waay sàkku rek mën nga ko cee am ndax yàlla def weer wi weer yépp bari nanu waaye nag weer wi nag da cee gën ndax nag dogalu sunu borom la weer la woo xam ne lu ci waay sàkku rek tamuy dëgg ci yow sunu borom mën na la koo defal kon nag sëriñ Saaliw sëriñ mi nee na mi ngi lay sant bu baax ak njaboot gi nga àndal gépp ndax yàlla dogal na kat sëg bëgg ci kër gi moo tax nga tàbb ci biir kër gi bi nga tàbbee ci kër gi nee na sonnul nag soññu soññiwu la nee na soññiwu la waaye xam nga ni yoon wi di doxee daa mel ni mokkal nga ko soo ko agsi fii nag kon looloo tax dama dafa daal di jóg nga mën a daal di jóg ànd ak pas-pas ànd ak ñii nga àndal indi say jëf teewal ko fii tey am na loo ko waxoon nag da nga ko waxoon ne ko lépp loo yittewoo mu dugg am noppam biig ci guddi rek xam nga lu mu ko waxa nee na daf ne ko dafa bëgg a doon sam Seex Béthio lépp loo xam ne lu def ci kër gi la mu mu wëlbatiku mën koo def nee na pas-pas boobu la bëgg ànd ak yow nee na biig rek woon wax ko ko loolu beneen ba ca des dafa toog ba caag mu woo ko téléphone ne ko moom day day laaj ndigal ndax xalaat talaata ji nga xam ne dafa dégg mu ne danga koy def te moom it daana ko def waaye nag da ko daan def rek waaye nag dala ci laaj ndigal saa yoo ko ci joxee ndigal talaata di jotati mu wut ko indi ko fii loola nag talaat xalaati boppam la kon nag moom moo jekki-jekki woo ko wax ko loolu kon nag loolu pas-pasu boppam la nee na ba ko ko waxee mu ne ko daa am ñoo xam ne ba fi sëriñ bi jógee ba tey ñoom itam danoo féetewoo talaata du jot ñu indi ko ab gàtt moom itam talaata ja ca tege mu defal ko boppam mu ne ko kon bi sëriñ bii def su ci amee ndigal bu jotee jotatee mu indil ko ko nee na booba ko tàmbalee def kon pas-pas bi day mel ni kon nekkoon na ci moom muy doxe ak moom fii ci yoonu Cheikh Ibrahima Fall ndax kat yoonu seex Ibrahima moom kenn du ci rawe lenn nag lu nu jëf rek ndax yoon wi kat jëf rekk la xam Cheikh Ibra Fall nag fa mu jaaroon ba am lii mu am moom nii rek la kon moom day mel ni daa mokkal loola doo ko agsi fii kon nag sëriñ baa ngi lay sant bu baax di sant bokki taalibe yii nga àndal nee na la nga ko waxoon keroog rek keroog ba nga ko joxee sa bopp da nga koo wax ni ko mbooleem ñi mu àndal daa bëgg ñu ñëw def nii mu def xam nga loolu pas-pas bu rëy la ñi nga àndal yow daan liggéey ci yoon wi bi mu ñëwee jox ko boppam dane ko ñi mu àndal ñëpp daa bëgg mu ñëw def nii ñu def loolu pas-pas bu rëy la mu ne ko nag ànd leen liggéey Seex Ibra Fall ndax yoon wi kat ngërëm rekk ciy maye dara fa mu jaar nag ba am loolu jàpp na ngër ngërëm rekk la ndax am na loo xam ne du ay ndax du ay caaxaan daa am kàddu goo xam ne nag borom kër gii di sëriñ Basiiru Faal alxuraan yàgg na koo wax ku ànd ak man te waroo ma ma yóbbu la ci sunu borom nammeel googu nag moo fi nekk leneen néeg fi nag loolu ñun nag fa nu nekkoon démb ak tey noo nga foofa rek waaye nag fekk nga ko foofu day mel ni sax ba mel ni sax da nga noo ëpp pastéef ndax toujours damay wax ni ak taaliba la ca gën nga mën a soññ sa kilifa ci nga wax ni mooy sama jëwriñ ci yoon wi nga xam ne bu la séenee rek moom dana am lu soppiku ci yow loolu nag nit moo koy sàkkul boppam waaye nag dox du fekki kenn pas-pas boobu nag wax dëgg yàlla xam na ne mi ngi sëñ Saliou Lo mii nee na bi mu ñëwee Touba ak léegi fu mu jàpp ne ni yaakaar ne sëriñ bi dafay dem fokk mu ne ko xaar ma ma jël si la yóbbu la ba biig rek moo ko yóbbu ci siintu weer wa ca siintu weer woon doon def nga xam ne loolu moom toujours da koy saxal ci jëm jëmmam ji ak ci jëmmam ji kon nag mi ngi koy sant bu baax di sant mboole mu bu baax jëf yi nag yal na ko yàlla suñu borom nangu li bëgg moom it yàlla na ko suñu borom defal ci barkeb sëriñ bi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. jëf. juli di mbokki taalibe yi rawatina mbokk yi nga xamante ni ñooy bàyyi xel seen rajo Assalaamy FM ak seen site internet di télévision Assalaamy FM ñoo ngi fii nag tey ci euh, Baye Fall gi ci bés bu am solo bi nga xamante ni moom la ñuy um di euh, weeru koor muy premier jour weeru koor ñu nekk fii ci kër maam Seera Fall gu mag gi di ñaanal am di Fall moom Serigne Modou Mbenda yàlla guddal fanam yokku wéram ba mbooleem ay naalam ak sumbam mu àggali ko defe ko nu moo di Serigne Bassirou Fall alxuraan tey di Serigne Ngunda Fall ñu ñaan yàlla kàttanal ko dooli ko taw féex waaye tam di siyaar baax ki nga xamante moom lañu jàkkaarloo ni feggoog moom mu di ab seexam di Serigne Cheikh Saliou Lo moom Serigne Ngunda Fall yaakaar naa ñëpp xam taxawaayam ñëpp xam ràññee ko ci liggéey bu am solo bi nga xam moom lay def waaye itam mu feggoog Cheikh Sada Niang ak mbokki taalibe yu takk yi fasanti yi nga xam ni ànd naa ñoom bàyyi ko fee ca Baxdaad ñëw fii nag tey ngir fekke si euh, ndog yi waaye itam indi ay hadiyaam yu takku yi fasanti ko nga xam def na ko ci kanamu sëriñ Cheikh Ngounda Fall moo tax nag bi ñu ñëwee fii ba siyaar ba pare dinañ ci ñëw ci tënk sëriñ bi da ko yebal mu ñëw fii ci waañ wi ànd ak taalibe yi barkeelu su ko ñëw fekkaat ko ci kër gu mag gi moo tax mu ànd ak mbooleem ay taalibe moom sëriñ Cheikh Saliou Lo ànd ak mbooleem ay xaritam ànd ak mbooleem soppe mbooleem am di jàmm yi indi ay gàtt yu fasanti yoo xam ni da ko tàmbalee ci weeru koor wi jox ko jébbal ko sëriñ bi waaye kon nag ñu ngi ki nga xam mooy sëriñ Bassirou Diouf di magum taalibe ci kër sëriñ Ngunda Fall waaye tam moom tamit di borom taxawaay bu am solo bi ñëwee itam fekk nañ ko ci waañ wi sëriñ bi ginnaaw bu ñu nuyoo siyaar la taxawaayu sëñ Ngunda ci kër maam Sera taxawaay taxawaayu sëñ Ngunda ci weeru koor wi waaye itam seexam bi nga xamante ni euh, mooy sëñ Seex Saaliloo olof yi dañuy wax ne ku yokkul da ngaa wàññi te sëñ Seex Saaliloo bi mu ñëwee ci kër gi sëñ bi seeral na ko léegi ni ko euh, la nga fi fekkoon yokk nga ko même moom ci jëm boppam sax ci oyofam yegg na ci banikoo ko liggéey ak taalibe ak ak doxin ak soññi nit danga may soññi ci taalibe su ma soññi ci doxin di ma soññi ci ak tabak ak joxe kon yaakaar naa loolu dara mootu koo gën a kawe ci diggante nit ki ak ab sëriñam sëñ Basir bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. <clears throat> ginnaaw bi nu santaate sans borom julli ci yónenteem bu tedd bi di jaajëfal at Serigne Touba mi nga xamante ne lii lépp mooma di jaajëfal it maam Cheikh Ibrahima Fall Lambaal Mouridina bu mag ba. waaye nag di ci toftal nak ki nga xamante ne ñun moo ñu boole ci lii muy kan muy Serigne Bassirou Fall alxuraan yàlla dogal ñun tey moom lañ xam moom lañ am moom lañ moom lañ xam moom lañ am sama borom dogal it ñu duppee ñu ko ñu bokkoon nekkoon ak moom mun doon yabal ci liggéey bii ba sama borom dogal ab liggéeyam mat bi liggéeyam matee muy sëñ Bassirou Fall alxuraan yàlla na ko sama borom dolli ay leer ca bar sàq Mouhamadee gam nekk bàyyi na fi ay rakam muy sëñ Aliou Fall muy sëñ Bada Mbacke Fall moom it sama dogal mu yor lii liggéey bi at fekk magam ja bàyyee ko rakkam ji moom it Serigne Cheikh Fall Cokke mu yor liggéey bi at yëpp moo ko yor yàlla na yàgg te ànd ko njaboot gi waaye nag di ki nga xamante ne moo nekk ci bopp bi di Serigne Ngunda Fall moom Serigne Bassirou Fall alxuraan taxawaayam ci liggéey bi mooy moom de gis na ne fépp fu ko bàyyam ba tegoon muy Serigne Bassirou Fall alxuraan fu ko raw rek la ko bëgg yóbbu ba leer na ko ne ki dox diggam ak liggéey boobu muy Serigne Cheikh Fall Cokke xam na ne moo wolem fu ko Serigne Bassirou Fall tegoon rek Serigne Ngunda Fall teg na ko foofu mbaa mu teg ko fu ko raw waaye nag loolee nag li tax Serigne Ngunda di ko man mooy comme lii ngeen wax nii rek mboolem murit ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak waajuram wa ak ñi nga xamante ne dañoo àndoon ak Serigne Gunda Fall ba sa borom dogal tey muy Serigne Bassirou Alxuraan ak ñi nga xamante ne ñoo dox gis doxiinu Serigne Gunda di ko xemmem mu mel ni comme euh, li nga ko wax ci Serigne Saliou mii yàlla dogal mu gis Serigne Gunda Fall xemmeemal ko boppam ba yàlla dogal mu tabbi tey jii ci biir kër Serigne Bassirou Alxuraan gii loolo moom dañ ko ci santaat bu baax a baax di ko ñaanal ndax nag di ko soññi nag soññi gin ko gin ko soññi mooy kër gi daa am lu mu baaxoo baaxoo gi mooy lépp loo xam ne ñi ngi koy def ci kër gi sëriñ Bassirou Alxuraan dajaa tegoon tànkam bañ na ba mos ta bëgg dara wala mu doon dara lu doon dongob taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall ndax suñu mosaa wax danaan man da sama yoonu kër maam yi bu fi jigéen képp desoon wala ëkk moom laay topp waaye du ma topp keneen kon kooku pas-pasam mu sëriñ Bassirou Alxuraan kii maane am nag ñaar yoo xam ne daa dal ci kawam tey jii muy benn bu njëkk bi mooy bis bi nga xamante ne mooy bisu maam Cheikh Ibrahima Fall bi muy talaata bi ko Serigne Touba gërëme woon ci Darou Salaam sëñ Bassirou Alxuraan màggal na ay ati ati at te bis bu xamuñu ko woon waaye yàlla dogal nag am murit yu nekk Tiwaawan di ko dox di ko dox di ko dox ba ñëw gëstu ko bi ñëwee yàlla dogal na moo doon bunt bi ñu jaar ci moom waaye nag mooy leen man de xam naa bis bi waaye nag awma ci sañ-sañ ànd dem leen bool leen ak ak njabootam dem leen ci sëñ Modou Aminta sëñ Modou kat moom moo fi nekkal tey ji moo fi seerafal kon lu mu mën a doon moom moo cay joxe ndigal bi mu waxee dañ leen ndax bis boobu bu ngeen ko bëggoon xam xam ne ñaata fan lay doon ci weer wee ñu ne mu leen bu benn panub dimanche fukki fan yi ak juróom-ñaar mooy tombeek talaata muy bis bi Serigne Touba gërëme woon maam Cheikh Fall te Darou Salaam muy bisu gàmmu muy weeru gàmmu yi bi yàlla dogaleen moom mu yoral boppam talaata ji moom sëñ Bass Xolane ndokk nag bi nga tabbee ci am pas-pas bu toll nii li sëñ Bass Xolane doon defal muy talaata ji nga ca tabbi ne fas yéene nga koo defee na ko sëñ Bass Xolane doon defee ñu ngi lay ak yokkute ndax loolu pas la ndax daa amoon pas-pas bis bi Sëriñ Tuubaa gërëm Cheikh Fall saa bu jotee wallaahi xasim talaata jot dana defar gàtt bi moom sëñ bas alxuraan bi loolu bi fi bi ab liggéeyam matee nag muy sëñ bas alxuraan sëñ gunda mii nag sa borom dajale la ak moom yàlla dogal nga xemmem sëñ gunda ba xenc ko ba tabbi ci biir sëñ gunda gis na ne la nga xam ne moom la waajur wa nekke woon muy talaata ji da bokkoon na ci lim fonk ak lii nga xamante ne mooy bis maam Cheikh Ibrahima Fall muy muy ndogu yii sëñ bas ñetti bis mën naa ne moom la fonkoon ci addunaam muy bis bi Sëriñ Tuubaa ko nag dara bis bi nga xamante ne mooy ndogu yëmlewu ko dara bis bi nga xamante ne moom it mooy euh, guddi gi mi màggal fii yëmale ko nag dara ñetti bis yi moom amul loo xam ne daana ko caaxaane lu mu ci yokkaat nag mooy ku dox diggam ak ndigal li moom ku dox diggam ak ndigal li kër kër seerafaal yi moom day jaar sa kaw jàll demoon na ba seereel ko xamal ko ne ko mu dem ba ci sëriñ Saliou képp sa mënunta képp koo xam ne am na caag moom sëñ Abdou Khadir sëriñ Saliou sëñ Abdou Lat ñëpp seereel na leen ne sëñ Bakhoane mi ndigal lu ngeen ma digal kat mooy ki nga xamante ne mooy mooy mooy ki ma ci jàppale ba tax ma man ko kon bi moom sëñ Bass Bakhourane sëñ nekk jël dàll wi waajuram simmi woon mu sol ko te yàlla na yàgg ak dàll wi ànd ko ak yéen ak ñun ñëpp nag ñu fas góor góor comme ni nga ko waxee yëf yi nag maanaam comme ni nga ko waxee yow sa jëm bopp yow sëñ Saliou nekkul ne maanaam da ngay ñëw def rek sëñ bi ne waaw góor nga yàpp ne déedéet yëf yi fii nga ko fii nga fii nga ko nat yaay dàq bëggug sëñ bi di ko fetal di ko di ko jàmm bëggug sëñ bi nag mooy ku koy jàppale ci li mu bëgg a liggéey Cheikh loolu rek la sëñ bi bëgg te yaa nga ca loola kon nag yàlla ci sa jàppale ba nga xamante ne ni nga ko yéenee amee ko ni pas-pas bëgg ko ànd ak si sëriñ bi sama borom yàggal leen te wéral ba ni nga ko yéene nga defee ko ni ba nag lu mu mën di doon nag sëñ bi da jagleele rek sëriñ Saaliw am na loo xam ne yoroon na ko jagleele ko Seex Béthio ak ñeneen ñu mel ni moom ay baay góor a tii nag ñëpp ba ni sant ak cant nag feeg boole woo di ndamu cant gi des na yow nag fi ñu lay waxee mooy. bis bi nga xamante ne moom la sëñ sëñ Gunda njëkk a ñëwee sa kër lu ñu fekkee ñun dama man koo gérer mooy danga nga koo def ak cant ban ñëwet am na lu ma jàng ci yow man ndax dama na xam ne ku kilifa woo say bokk bu ñëwee war nga mën a mel neneen ci àdduna xaw a soppeeku dem solo ji simeeku gisuma ko ci yow su ma ko gisoon dama la koy wax waaye na na nga teeroo sëñ bi noonu nga gungee sëñ kon yëkkati sa bopp taxutoon nga koy def waaye nag daa am loolu sëñ bi waxoon sëñ ak ceex amu solo li solo mooy am ngërëmul yàlla loo wax sa borom fekk la ci kon yàlla na borom defal ngërëmul yàlla loo bëgg waxuma la nga koy wax sax waaye na ne sam xel nga bëgg ko rek sëñ bi fekk la ci sëñ bi nag foo ko natt foo ko natt rek fu mu toll ci yow rek yaa fi yamale sa bopp maanaam bëri gub diw la noo ci tàbbee noonu nga ni nii ne beneen bi tegoon mooy fii nga taxaw tey 1986 wala 85 bi ko sëñ Abdou Lahad nattee jox ko sëñ Modou Fall sëñ ba Awane lañ ko dénkoon mu nekk ñeenti junni pàkk ak nangam sëñ Baroxaan la ko sëñ Moodu Anta dénkoon moo ko doon sàmm jël ku di wax Moustapha Sylla sampal ko fi daara mu yor ko ba sama borom dogal Moustapha Sylla wàcc Ousmane Diop mii di Sikar continué yor daara ji ba sama borom mu wàcc Baara Seck continué yor daara ji ba keroog ñu tabax kër gi 2000 kon boo ñëwee tabbi ci kër gii ñu fi toggee ndogu Cheikh Fall yi sëb sëriñ wala sa waajur sëriñ moo yoroon pàkk yi ban naan ay pàkk mu jafe lool ku ne bëgg ko sëñ Baroxaan moo ko téye woon ci loxoom téyel ko maam Cheikh Fall ba kër maam Cheikh Fall tey ñu tabax ko maam Cheikh Fall dugg ci biir kër gi kon loolu leneen la tey jii nga fi duggewaat mooy bésu lan talaata ku ne xam ne ne sëñ bi waxoon na talaata moo ko yoral boppam di ci def lim lim lim jaan def waxoon naa la ko ndax la tax mooy ci la sëriñ Tuubaa gërëme woon maam Cheikh Fall mu yor ko bis boobee la sëñ ba taxaw njëkk a taal fi ay ndogu ay ay ay ay ay bisu la fi njëkk taal ay xéewal muy fii ci kër gii sëñ ba taxaw na a taal moo ko yoroon ñu tabax kër gi moo fi njëkk a taal ay xéewal sëñ am numéro njëkk fee taal ay ndog kon dafa mel ni moom li mu bëggoon a lim li mu téyeloon lépp bi matee la xam ne li mu doon téyel seerafal mat na mu daal di wujji seerafal bàyyee nag ñi nga xamante ne tey ku mel ni sëñ am di fall moom sëñ Modou Mbenda mii nga xam ne ñu bari xamuñu ko woon ci saayir waaye nag ab denc la woon denc seerafal la ñangoor la bi matee daa ñibbi si kër maamam xëjatu feneen fii la xaj bi mu geneen kër fii fii am kër muy kër maam seerafal si téye woon ko ci loxoom ban ne kër maam seerafal maam seerafal ñëw dugg ci biir kër muy sëñ Amdi Fall moom sëñ Moodu Mbend kon nag yow jàppal ne sa jëf daal jëf ju maam Cheikh Fall nangu mooy sa jëf ji ndax tax mooy bu ko nangutoon doo dugg doo bokk ba bokk booy bokkit da ngay nekk feneen waaye fii nga tabbi nag jàppal ne tabbi nga ci biir kër maam Cheikh Fall ndax kat sëñ bi moom léppam maam Cheikh Fall la woon amu yëmaliwu ko nag dara dara dara dara dara màggal baayam guddi maam Cheikh Fall bu ñu ko daan def cérémonie bii sët yi def woo na sëñ Gunda ba mu ñëw mu ne ko bu ngeen àggee bu leen fa tudd sëñ Mbacke fa mënta waxtaane maam Serap Fall na fi yem bu ngeen mënta waxtaane maam Serap Fall tàmbalee ci maam Serap yem ci maam Serap Fall bu leen def ngontum sëñ na fi yem amul dara loo xam ne bëggaloon na ko boppam lu maam Serap Fall ba téye woon kër maam Serap Fall ñu taal fi euh, bis ko sëñ Tuubaa gërëme taal fi ndogo yii nga xam ne sëñ Tuubaa ko digaloon Serap Fall sëñ nag daan ne kon nag li ma doon bëgg lépp sama may na ko kon naa wuj naa nag bàyyee ñi ci doxal ki mu bàyyee nag mooy sëñ Gunda Fall mii nag moo yenu yen bi man nag du ma ko ñaan yen bi oyof ndax bu yen bi oyofee kon am sëriñ bu yenu yen bi oyof am njariñ daa war a yenu diis gann na ko kattanal la mu mën ko yóbbu ba fa ko bàyyam yóbbu woon mu romb ko loolu laa koy ñaan waaye ab sëriñ nga koy ñaan naa ko yen bi yàlla na oyof lu mu koy jariñ ab sëriñ daa war a yenu diis gann ñu du ko yóbbu mu diri ko ba teg ko fa fa kër foo giwutoon loolu mooy tax ñu ñu mën a xam ab ab sëriñ la mu doon waaye nag ndokk bi ngeen àndee nag ak sëñ Gunda bàyyam nag jëf na fi waaye nag jëfi baayam saa borom boolewuloon ak la la booleel loolu tax ma ne nag di ab liggéey matee daa jël doomam nag teg mu fas yéene indiwaat nag ndax am na yokkute bu am fii bu ci kër gi jamonoy waajuram amu fi woon waaye fi mu nii tey boo waxee noonu suñu na moom bir na ko ne kii di rakkam ci wax suñu fi suñu seex soora jaxate rek lim ko indil ci ay ay ay millions démb barki démb njaay bi fi bàyyam nekk suñu seex soora mus koo def suñ gunda mi mus koo def kon xam na ne yëf ngi dox yëf yaa ngi nii nga ñëwee ku mel ni murit baaw ak yeneen murit di ko ñëwee yaakaar naa ne ba fi seen waajur nekk yëf yi amutoon lool kon xam na ne xaal na yoon wi li ci des mooy daw lu mën a doon dañ koy teg ci mbagg yi duñ ko yenu sax ci mbagg yi lañ koy teg ànd ak moom daw fas yéene koo jofale sëñ ba si alxuraan yow nag ñu ngi sant di ñaanal euh, sëriñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo la pare euh, tey nga def jëf ju rëy joo xamante ni àdduna seere nañ ko Touba seere nañ ko waaye itam sëñ Bassirou Fall alxuraan seere na ko muy ko fi nekkal tey di sëriñ Gunda Fall yàlla na yàgg lool ci ànd ak wér li ñu bëgg nag mooy euh, sa taxawaay ci biir kër sëriñ bi mel ni en tant que taalibe dama ne ma sa am jotaay boo xam ne dañ laa wax nga ni lépp lu may def ci Cheikh Rafal laa koy defee ci laay xëccee ci Cheikh Rafal laay jañee ci laay waaje ci laay wàllee ci laay faje soxlaay jaam ñi di lu rëy loo xamante ni lu mucc ayib la kon nag tey nga ñëw jëf-jëf jëw ji nan nga waajale euh, weeru koor bi waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa daanaka kàddu yi sax dañ koy tënk rek du bari ndax euh, sëñ bi léegi mi ngi may dee na ma sëñ bi dafa war a jébbali addiya ji léegi nii kon kàddu yi daanaka du bari gis nga gis nga mbooloo mi euh, ñi ngi koy kii yaakaar naa dañ koy tënk rek tënk bi mooy ñun moom euh, kenn waruñoo sant déedéet maa ngi koy wax sëñ Basirou mi léegi nii bi mu yoree micro bi ñun jëf ji nga xamante ni tey jëf nañ ko maa ngi koy wax Cheikh Sadda léegi dama ci am man dama ci am gàcce dama ci am lool. ndax euh, dama yéene woon lu ëpp lii yaakaar naa sëñ bi mi ngi la koy wax léegi biig rek laa ko woo ne ko sëriñ bi dal ñun moom yaakaar naa taxawaay bi nga xamante ni fas nañ ko yéene taxawaay ci taxawee si sa jamu ji muy ñun ñu nekk am Seex Béthio Thioune ci sa ci sa ci sa wet wala nu ko raw ba yaakaar naa léegi la ko biralaat euh, ci biir te noonu yi leen fas yéene doxe bi sant nag man moom kenn waruma sant man may sante di sant mbooleem koo xamante ni àndoon ak moom ànd ak moom ci liggéey bi moo xam taalibe la moo xam ku mu mën a doon koo xamante ni tey ànd moom ci liggéey bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm xañ na sëñ bi woote na te sëñ moom boo xasee ba woote daanaka taxawaay amatut dañ koy tënk nii rek ba dem ci ndigalu sëñ bi ba ñëw bu ko defee ñu soog di àggale incha allah soo maam Thierno sëñ Maxaali Jaxate kenn ku ci nekk booba doy nañu attewukaay booba doy nañu attewukaay waaye waaye waaye moo ñokkatiku ne leen fii lu sëriñu xam-xam wala sunu yonent bi moom Xaalima Jaxate ak sëñ maam Thierno ñoom ñëpp loolu waxkat yi naan Cheikh Ibrahima tas taalu jàng yi. yi boobu taalibe boobu taalibe yi. boobu waaye loolu mooy li am. man lii mu leen wax. foto ci ay gone. foto ci ay gone. jëlewu ko ci ay magam. ña toppoon Cheikh Ibrahima Fall. wax jooju ci ñoom la ko jëlee. lu wax rek. lu Cheikh Fall wax du caaga ne lu muy laaj kenn la dana ko dégg ci ku bokk ci Cheikh Ibra wala ku ko liggéeyal loolu la bëgg ñun taalibe yëpp ñu maase ko xam sëriñ bi nee na mi leen di sant mi ngi ñuy gërëm yàlla nañ ko teewee ndege ni déwén ànd ak mucc ak mujjule ak barke ak barkeel te lépp lu liggéey ñoo ngi koy dégg Cheikh mu dénkal ñu ko Serigne Touba ñu dénkal ñu ko fa yàq eggul jërë ngeen jëf ñu yóbbu bu kon